yéen sumay mbokki jigéen kaay leen ma digal leen yéen ñi nga xam ne dig da ngeen a taaru si tubaski bii di ñëw si nii képp koo xam ne bugg ngaa taaru bi soo génnee ñu laaj la foo jóge dama rek fii nga xam ne nii mooy brand new salon and boutique soo fa demee rek di nga taaru xoolal leen ma designers bi daala yi nii ak seen i poos képp koo xam ne ne boo génnee di nga kontaan ñu ne nag fi mu nekk def manicure di def képp koo xam ne bugg nga sa wéy di nas nasi dama rek foofu noonu waaye xoolal leen ma meesu taaru yi nii mees boobu bugg a amal nañ leen ko fa muy yow bi nga xam ne ni moo gën ci yow ñu ne a caxa nga xam ne ni ñoo xew ci jamono ànd ak ñu nga fa xoolal leen ma wiig yi ni tamit yëpp a nga fa yow daal yow mu dem fii nga xam ne mooy brand new salon and boutique nga tànn la nga xam ne moo la ne ànd ak moom dox ci tali bi nongi nongi wéy soo demee rek ñu laajal la foo jógee jaaraama yéen ñi nga xam ne ni da ngeen ñëw rek pour jàppale askan bi brand new salon and boutique daal ñoo ñi nga xam ne ni ñoo xew ci jamono ànd ak jamono

Mr. Musky, life in Brickham and Joko. It's gonna be the very first time in Brickham. It's gonna be the biggest night party of Brickhammer, of the Tobaski weekend. Life and Direct Champion Sound. It's gonna be 12th November 2011. Life and Direct in Brickham and Joko. Guest artist Oliver the way from Senegal. Jole Jama Noir, Life and Direct in Brickham and Joko. Tickets are $75 before 12 o'clock. After 12 o'clock, it's gonna be $100 flat. Guest artists in the house, Mighty Joe. you got to be careful, know trust. Yo, Brixton gangsters, the tsunami, I'm on the pipeline coming. It has been a while, I'm there at it, you know, 12th November, coming with the full family. Tsunami, Mighty Joe, come with me, explosion. They are at it, become a joker. I'm out. Queen Bala, Wall, Life and Dirty, become a joker. we're coming to your place, become a call me Mr. Besky Special, Saturday, 12th November 2011, Palekhawe, Joko Brikama, Anise Khan, Champion Sound, Dylan, Indina from Dakar, Senegal, Njole, Bromley Bonde, Jole from Senegal. Young people, the young Atlantic, more in England, Lubesa. 22nd, Jai Sasson Bondel, Bondel, and Jolly, Jamanwa. by Official. Yes, you can send the money to FID. Okay, also Western Union, yeah. It's the same, I can get it from FID. Money, money, money, kii. waaw mo money grab. waaw dinaa ko jël ci FID bi. loolu la yéen lu ko FID. ah. mais ma mais ma mais ma. di nga daanu di dafa man dinaa wéy bi ma ne gis nga affaire yi dafa la daan defati gisee lu koy la dina li mu def nag mooy lan rabul tabaski rabul tabaski waaw waaw yëpp ku ñëw affaire yi jël fa xaalis dañ la jox ticket bu nga xam nii moo lay mën a boole ci raful bi nga mën a win xar mu rëy a rëy a rëy ah laa koy may moo tax ne épargne bi yaa bëri njëriñ ku la topp rafet nga jikko da ngay bégal Tabaski weekend Tabaski week-end Witty Fine ànd seeg Pape Thiopet en live Pape Thiopet Gambia bàyyi ko ci United States of America ci Big Tour Pape Thiopet ne déetawaay si Gambia kañ lay doon Friday November Club Duplex Sénégambia guest artist from Dakar Sénégal Joleya Jamanoa Kaskas Ticket like the 200 dollars before midnight. After midnight, 300 dollars Pop Your Bob Jobet. Bob Jobet at Album Bubessa. your bed. Boom. you, sir. Weekend Friday, 11 November 2011. Good if you selling good today. Bob Jobet nego ci pay nak best. lu bes tax guide kon gaaji duplex on Friday 11 November. Dina tax na ci xam ngeen Bob Jobet kon nettali Pop your borom. Bob Jobet ask wax askanu Gambia. Kooku mooy kat mooy Papa Ndiaye Jobet président Celeste man yu na waram taakini baak raay I'm ak morso yu bees yi nga xam ne nag moom la ñuy def indi ci mod Modou Lo Balla Gaye kon gars yi biir maa ngoog coppe dina ne cëpp rek si duplex fas yéene xajaxa duplex Friday 11 November 2011 di 200 dalasis ñoo ngi préparé nag di ñëw ak Lamine Thiam moo indi Ndiolène ak Papa Ndiaye Coppet Gambie lu bees a bees lu bees lépp fa la koy génne kañ la le 11 novembre fan la diplex ñu jàkkaarloo ak yéen xale bu ci mën a yëngal ndig rek maa ngay def ba mu tëb fekk ma fa diplex la 11 kontaan nañ ci yéen how are you fine Gambia. ak Pape Thiopet léppay te commencé. reliance financial services ining money express aning ria wala kodikiyo soni andalia alsalla kodo kino wala sambalaro yeren kabolan dunia karo mumela satel mulu ko senegal aning africa banku tomal america aning banku kotengol dunia kono reliance financial services ye male faila ku nyato wala yatina ye kodikiyo aning sambalaro soni ani mini be do doku wala jang aning ko e bantala pour la dimbal danyini ndele muisa si sokoti ngal kumandi reliance bank money express beje momo ni lafta ki kila mali yena eh, eh, eh, express reliance bank ila muni express beje a tariyata a sonoyata a nambarante je ikela hela kodo ki nta ka risive mali nga risive gambia jam ndum ya kuke isila kodo ki wala nyela sambalaro dila kataba kilim hani ni nin sewo nin kontano je sey reliance financial services be adama di wala falin falinkanne aning money express ning ria woto kodo ki wala sambalaro ki yenan aning reliance financial services silola mimbe somyaring andunga be tariyaring sama xol bi yaa ci na ma ni yow lay jëneeroo wax na ma xol bi yaa ci ne nga la yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moo metti naay xaritam bàyyi na ko dëkkandoo yi sax bàyyi nañu ko waaw ay mbokkam mere nañ ko nga la yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moom metti naay laay lay la It's gonna be 12 November 2011. Life and Darek in Brikama Joko. Guest artist Oliver from Senegal. Jole Jama Noir, Life and Darek in Brikama.